ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam di sante serigne Mountakha di ñaan yalla may ko wër yagal ko fi serigne bi ñu ngi lay nuyu ci turu njiti rew mi di talibé serigne Touba di Macky Sall yoni ñu nyu ñu and ak gouverneur du région bu jurbel mohammed mustapha Ndaw and ci it ak préfet département de Mbacké Mamadou Lamine Mané and ak sous-préfet bu ndam Mansour Diallo and it ak domou Mbacké di directeur général Galoba anda ak honorable député Modou Bara doli Mbacké and yit ak membre au conseil des collectivités territoriales ñi bokk conseil économique social et environnemental and yit ak le ministre conseil Ousmane Isma Dioum and ak le conseil technique du premier ministre Serigne Abo mi nga xamantene ne tamit Abo Sall and ak mbokki talibé yi nga xamantene ne lañu andal waye and ak chef de service yi nek ci région bi ak euh, département de Mbacké di la nuyu serigne Abo di ñaan yalla wëral la yalla yokk fan yi nuyu yoyu dañu la koy jébal muy nuyu président Macky Sall nek sa talibé nek yit sa xarit bu ñu la joxe noyo yi nga jébbal ko ki nga xamantene moy jawrinu kër gi muy Serigne Bassirou Falilou mu jebal ko porte parole famille bi di Serigne Abdou fatta serigne mam tiernou di ministre de l'environnement bokku ci kër gi moom i tamit mu ngi ci délégation bi nit ki boo jege trop dañ lay jël moom taaliba murit la mbokk la ci mbir yi la bokk gannaaw noyo yooyu dañuy noyu kilifa diine yi fi nekk yëpp di nuyu Serigne Cheikh bu Cheikh Abdoul Khadr di ko ziyaar di ziyaare it porte-parole yoon wi di yooni murit di Cheikh Bass Abdou Khadre bu ñu la nuyoo yooyu day jàll ci taalibe yi jàll it ci am di jàmm yi jàll ci sëriñ si jàll ci kilifa diine senegal yépp dañuy tënku nag ci kàddu yi nga xamante ne moom moo fi jiitu muy ndigal gàttal ñëw bëgg koo tënk rekk ci ñaar yëf mooy cant ak ñaan li tax ñuy sant nag mooy sa taxawaay yow xalifu sëriñ fal ci yar gi ngay yar doomu aadama yi ci diine ak topp ndigal ak liggéey te defe naa ne loolu yëpp ku ko dëxëñ loolooy dox dëkk neex loolooy taxit réew jëm kanam yar gi ngay yar taalibe yi ci am ji ko taalibe waaye ku wax liggéey it wax économie ku wax économie wax wér-gu-yaram te li koy firndeel mooy jóge bi ngeen fi waaj a jóge dem inauguré ji lu jëm ci post de santé loolu li muy firndeel rek mooy réew liggéey moom moo ko yor réew jàmm moom moo ko yor te ci loolu ngeen di yar doomu aadama yi kon ku jiite réew am kilifa diine yu taxawe noonu yoro nga leen cant moo tax président Macky sàll mu lay sant ci sa taxawaay di sant njobootu Serigne Fallou yépp ci seen taxawaay di santit taalibe yi yëpp ci seen taxawaay parce que réew mi ñépp a ko bokk ku nekk da ciy béy sawaar pour jàmm am ku nekk da ciy béy sawaar it pour réew mi jëm kanam la ca des mooy cant ak ñaan gi ma wax léegi parce que cant gi li koy tëj moom mooy li mu def démb mu tombe ak kasu rajab parce que nag ku dul taalibe it xam nga ne loo xamul xamoo ko waaye bul ne amul waaye yàlla amul hasard bu dajalee muy commencé mandat bu bees mu daje ak kazu rajab ñun ñuy taalibe jàpp nañ ne tawféex la pour réew mi parce que ku ñu dénk bu doxee rek lay nekk tawféex ci yow te comme dénk nañ ko réew mi mu commencé yàlla na ko kun gi doon ànd ak waxu sëñ Fallou gunge ba réew mi jëm kanam am dal te lépp lu mu ci nar pour doomu adama yi yàlla def ko ah bu fekkee ne loolu am na digal nañu ne nga ñaan pour réew mi jëm kanam te jafe-jafe yi am ci réew wi ñu wër yàlla saafara ko waxuñu mu yegg si nag dañ ne mu saafara li nga xamante ne moom moo wër senegal mu am ay jafe-jafe am ay musiba yu fay xew te ñu xam ne bésu sëñ Fallou ku ci dogu ni ko sëriñ bi waxee léegi yàlla dina ko def yàlla jàmmal Sénégal def taw feex ci Sénégal nga ñaan nit fii ñu jëm parce que yàggatul nawet baa ngi jub si yàlla sotti ndox mu sedd lépp lu nit ji mu sax te muurloo ko loolu nag jàpp nañ ne lu jëm ci mbay moo yor réew mi bu doxee rek lu bari ci réew mi dana dox ñu ngi ñaan it képp kuy nekk sénégalais yàlla def ci yow jàmm te yàlla def ci yow dégg aussi ba sénégalais yépp mën a joxante loxo waxtaan xool li nga xamante ne moom mooy tax réew mi jëm kanam ñépp tënku ci kon sëriñ bi ni ma ko waxe legui wax ji du gudd parce que liñu tenk tenk nañu ko te kep ku fi ñew yaa ngi ak sa yene te ñu ngi ñaan ci barke serigne fallu yalla def ko di nuyu nak ñi fi tew yeb monsieur le maire de Touba sama serigne Cheikh abdullah ma ngi lay ziar ci fekk biñ la fekk fi ak sa taxaway di ñi nga xamanteni parti opposition lañu nek te ñu fekk len fi ñoom itamit ñu ngi leen di nuyu di leen ziar sëriñ bi daal li ñu mën a tënk ñu ngi lay ñaanal yàlla defal la jàmm defal ko njaboot gi defal ko mbooleem julit yàlla may it président Macky Sall bi ñu yónni yàlla may ko sago ba nga xamante ne lépp lu mu naar pour réew mu jëm kanam yàlla defal ko ko yàlla may ko jàmm loolu moo doon kaddu yi di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah